asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yëpp waaye rawati ci mbokki taalibe yi murit yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen jaale ki ñu bokk di mbokkum taalibe murit bu ràññi ko ci yoon wi di sëriñ atu Jaañ ma di ci joxe samay seere ci mbokkum taalibe ak moroomum taalibeem xamoon ko it ca kër sëñ Abdul Ahad bi muy doora bi muy nekk ci daayira étudiants yi di ànd ak Saaliyu di fa ñëw ñu daa siyaare sëñ Abdul Ahad mu leen digal ñuy def te booba ma ne ci kër ga léeg-léeg ñu egg sama néeg naan fa kafe ñu waxtaan booba laa tàmbali xam aatu yoon wi ñor ko sëriñ bi ñor ko xasaay di ñor ko liggéeyal sëriñ bi rek di itam loole yi dafa mel na moo ma bëgg-bëggam dafa mel na itam sieblaat ko xam nit la te ku yoon wi ñor la te nanguloon na ko lool waaye loolu itam la doxal ci mboolem xulafaaw yi topp ci seen blaat ba ci sëriñ bii ku rek seq naag yow loo xam ne ku xelluwu lool sax da ngay defe ne aatu moom sëriñ boobu rek mooy léppam te fekk sëriñ Tuubaa rek lay wut moom man noonu laa ko gisee ba ci sëriñ bii nag dafa yàgg ak ñoom jiitu muy doon sëriñ Tuuba nangul leen fonk leen doon seen jëwriñ waaye mu wóor ma ne sëriñ bi gërëm na ko ndax xam naa dégg mag sëriñ Muntaxa xam naa ni mu ko doon liggéeyale ak pas-pas bi mu ci am ak yéene ji mu ci amoon day gàttanu ndigal di nekk ndigal te fu ndigal ñëwee du ca teg baat daf koy daal di def fi saasa te du am gaaral li sëñ bi naan watarkul i'tiraadi mutlaqan wala bi baatinin moom dalu ko lu tax sëñ bi def léegi lu tax mu jox kii léegi lu tax mu def loo ma day def rek kon nag nit moom lim man ci mbokkum jullitam rek mooy ñaanal ko ak seere ko ak jaale ko ak gunge ko noo ngi sàkku nag mboolem fa ab jullit ne ci àddina sépp rawatina nag taalibe murit ñu jàngal ko suratul ixlaas ñeent fukki yoon te ku ko man nga jullil ko julli gii ku ko man nga tegale ko ci ñetti fan jëkk yëpp guddi gu nga jullil ko ko te moo di ñaari rakka rakka bu ci ne fatiha benn yoon ayatul kursi yi benn yoon alhaykumu takaasur benn yoon suratul ixlaas fukki yoon ak benn ñaar rakk yëpp loolu nga ciy def boo sëlmalee nga wax ne allahuma inni sallaytu haasihi salaata wa taalamu ma uridu allahuma ibxas sawaabaha ila xabri teg ci turu sëriñ aatu jaañ kon nag murid saadax dëgg dëgg dëgg faatu na kon nag sëriñ bi taxoon muy jëf yàlla dal tase moom yàlla na ko gàttanu tam dem dëkk ca fa muy saadax yi dëkk ci jannatul firdawsi ci daraje sëriñ Tuubaa di ko jaale sëriñ Muntaxa ak mboolem ay rakkam di ko jaale Cheikh Ibrahima yëpp waaye di ko jaale mboolem membre Hizbut Tarqiyyah yëpp yëpp yëpp di ko jaale réew mépp ndax Sénégal gépp ko bokk Sénégal gépp ko ñàkk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika hum almuhtadun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh